waaw non mais nee na c'est pour répondre aux questions qui. vous dites Macky Sall et président Sonko pourquoi. non on peut dire président Macky Sall. fii ba 2024 mooy président de la République. oui je crois. le président légal oui bien sûr. légal donc vous êtes quelqu'un de justement de la. de l'appareil judiciaire, c'est pour ça je ne comprenais est le président. Non, non, non, non, non, non j'ai pas dit Il est, jeune. Non, il n'est pas. maître Bage di quoi. Non, non, attends, eh, mais bon, maître maître maître président de la République. mais pour ce coup-ci là. C'est pour ce coup-ci. Malade, C'est extrêmement grave. non xam nga man du ma ko répondre man li ma li par rapport à la citation directe. waaw moom mooy def citation avec ses avocats. moom dina xam nu muy avisé. maintenant concernant ce livre. Mhm. man li ma gëm. man sama gëm-gëm laay wax nag. tu l'as lu man lay wax personnellement. tu l'as lu si am na lu ma ci liir liiruma lépp. ok damay wax ni. le livre titre bi c'est Macky Sall face à l'histoire passage sous scanner d'un mm-hmm. pouvoir africain édité, mais paradoxalement édité par édité par euh, l'Harmattan hein aux éditions l'Harmattan OK euh, c'est pour dire que effectivement Macky Sall la ñu tuddee sax si je peux dire livre bi mais paradoxalement coow li ci Ousmane Sonko la gën a féete encore une fois alors que benn ou ñaari chapitre moo ko non coow bi encore précisons que coow bi ni ñi euh, presque moo ko si def alors que le livre fait deux cent quarante mais c'est ce que je suis en train de dire finalement Charles et ce livre se résume à ce chapitre 16 mais mais page 168 le gens ne retiennent oui les gens ne retiennent que ça oui waaw ah, DER mën mën naa répondre n'est-ce pas. oui bien sûr yow yow yaa yow en fait je vais je voulais dire. 244 pages xam lu tax loolu. parce que loolu moo doon objectif livre bi. ternir l'image du président Ousmane Sonko parce que bu jëloon livre bind ko ci Ousmane Sonko day flagrant il faut que mu am beneen couverture parce que da ngay clignoter droite jàdd gauche. mooy couverture ci Macky Sall laay wax. sur le plan du bilan immatériel de Macky Sall nga wax fa loo xam ne ñëpp dañ koy c'est évident devant les Sénégalais Macky Sall ci boobu mooy wax ay ministres am ak ñu koy defaan ne. défendre leen ma ci sama bilan économique sama bilan matériel bu leen wax ci bonne gouvernance parce que xam na ne c'est un bilan boo xam ne macabre léegi nag il a dit kayewu kooku kooku kooku kooku léegi kooku mhm. il le sait très bien léegi boo ñëwee nga xas ko ci livre sur le bilan immatériel parce que effectivement xam nga ne loolu évident na nga jël benn parti bu ndaw peindre ci Ousmane ko comme une personne aux mœurs légères xam nga lu tax mu indi coow man man li ma gëm laay wax de maa ngi ko doon waay waaj a wax mhm. mooy képp kuñ fi condamné waxuma poursuivre de condamné pour viol hmm. maanaam yow da nga def infraction mooy comportement boo xam société bi da ko jàpp comme un comportement déviant mhm. ñu épuiser toutes les voies de recours man dama la mayul crédibilité ngay wax ñii di la déglu man loolu laa gëm kon kooku au nom de quoi lay wax loolu ñu gëm ko benn ñaareel bi mooy moom moo wax ci livre bi hmm. ne Sénégal amul liberté d'expression libertinage d'expression la am maanaam di wax lu la neex ci deru doomu aadama te dara du la ci fekk et c'est ce qui a été fait parce que quand sur la couverture du livre si ginnaaw nga ne livre bi est le fruit d'investigation et de recherche fouillée loolu nga wax mm. alors qu'en réalité yow booy wax ci Ousmane Sonko da ngay utiliser le conditionnel mmh. souvenez-vous dossier Petrotim mais le, euh, BBC reportage bi ñu defoon c'est c'est c'est de l'investigation journalistique mais nga baal ma mettre aussi pour la vérité des faits sur le fait incriminé même si je ne reviens pas dessus le conditionnel ne pas utiliser pour le les faire rapporter par rapport à ce qui mais man maay utiliser pour ce qui serait arrivé avec Ousmane Sonko sur la corniche pour ce qui serait arrivé man maay wax mhm. mais moom il n'a pas utilisé non xam nga xam nga moom dafa doon relater dafa doon relater oui dafa ne Macky Sall utiliser le conditionnel ne indi loon nañ ko tel dossier mu ne lu ma attaqué sama adversaire au en bas de la ceinture xam nga li ma bëgg wax foofu mooy li ngay wax su dee leer na la ah soit affirmatif ba mu leer nañ benn ñaareel bi mooy. je répète looloo tax nga baal ma tamit c'est pour la vérité c'est pour manipuler l'opinion c'est faux sérieux der der même bu utiliser conditionnel même bu utiliser conditionnel sa tuddul woon surtout Ousmane pour mm-hmm. Ousmane Sonko mun nañ ko topp diffamation parce que imputation même si c'est implicite mun nañ ko topp loolu c'est pas c'est pas important c'est un fait anodin xam nga lu am solo dama nga lire euh, euh, article yi koy wax xam nga xam nga lan moo am solo mun loo def loolu ci deru gor mais da ngay déférer devant les juridictions nga wax li nga wax foo ko teg mhm. amul benn crédibilité te man jàpp naa ne kenn waru woon perdre temps bi histoire léegi livre bi def na buzz euh, réussir na son coup bu la neexoon tey Sénégal fii ku mu neex nga def vidéo tey mais yàq lu kilifa diine yi wax ci wax yoo xam ne bu la neexee à la minute qui suit la vidéo sera virale ñëpp partagé ko def buzz ci livre am na yomb na bu fekkente ne ñeme nga def yenn saal bu looy livre boo xam ne en réalité objectif bi lenn la wane ne Ousmane Sonko matul njiit Macky Sall aussi dafa war a dem parce que bilan immatériel am baaxul te deux mandats la war a def pour dugg ci histoire am benn larron boo xam ne dafa war a fëll. Mhm, mhm. nga jël ko présenté ko ne mooy nit bu gën a set ci Sénégal. présent mooy Amadou Ba. non ah, Ba merci mhm. merci pour la question. vous êtes très pertinent. donc livre boobu noonu amul crédibilité pour ñu si wax. man de man du ma ci perte sama temps. la citation directe a été servie na dem mu defee rek mu leeral. mais qu'est-ce qui vous fait dire Amadou Ba. qu'est-ce que. qu'est-ce qui vous fait dire Amadou Ba.

seen wax mooy Ousmane Sonko ak waa Pastef ak mhm. opposition bi ñoom ak ñun a yem. loolu la ñuy wax donc quand tu perds Macky Sall tu perds Sonko ça fait ça fait le jeu de qui. mais mais je te poserai moi une question. maître. très xam nga yéen par exemple vous dites que Ousmane Sonko bon pas toi.